Reubeuss TV mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen ko. asalaamaaleykum yéen ñi suivre seen seen YouTube bu Reubeuss TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di am contentement saa su nekk di jàkkaarloo ak yéen. di am contentement aussi di partager plateau bi ak sama mag sama xarit Youssou Fall Youssou nuyu naa la. soxna Xadi saa fay naa la waaye man tamit noonu la amee mbégte jàkkaarloog yow waaye di am mbégte bu baax a baax jàkkaarloog yéen ñi nga xam ne yéen ci daan euh, seen seen bi nga xam ne mooy seen YouTube Reubeuss TV seen émission toj toj seen émission toj toj nag bu ko déggee émission la boo xam ne comme ni leen ko waxee woon euh, foo xam ne toj toj am na fa rek bii réew ak biti réew rek daañu ko indi waxtaanee ko waaye tamit ci kàllaamay kocc comme ñoo leen ko faral ñu leen koy faral di defalee saa su nekk rek duñu mës a taay di ànd ak yéen ndax dige boor la ba tax na lépp luy toj toj fii ci réew mi dinañ leen ko taajal fii ci seen plateau toj toj seen plateau toj toj li nga xamante ni mooy toj na nag ku ne xam ne ne fan yi ci ginnaaw Medina coow amoon na fa ci xale yu góor yooyu nga xam ne bi yoon jëlee ay ay ndigalam teg ko ne euh, juróom-ñetti waxtu ci ngoon bu yotatee am kenn amatul droit génn ba tax na xale yi génnoon ba yoon teg leen loxo ñoom nag dañ leen a jot a defeere ba tëj leen kenn ku ci nekk weeru kaso ba pare laaj leen ndàmpaay ñeenti junni yaakaar naa loolu day génn jaru ko woon génn jaru ko nekk na loo xamante ni tam métti na te yéenewuñ ko waa Médina ndax Médina suñu confrère ñoo fa dëkk mais dafa fekk ne tamit yoon su amee rek nañu ko respecté comme que nee nañ bu kenn génn à partir de vingt heures na ñëpp toog seen kër yi rek vingt ba tax na njuumte la yaay ñu koy jégalu ñoo ngi koy jégalu bu baax baax donte ay xale ko def waaye ñu ngi koy tuub di ko jégalu mu mel ni demoon ngeen fee nga tamit Médina duñ fa jóg de ca maire ba maire maire Médina Kër Bamba Fall ba ngeen demee la ngeen fa jëlee. tey nag demoon nañu fële ca mairie medina fekk nañ fa conseil municipaux yi ñoo doon waxtaan parce que ñoom de jàpp nañ ne fan yee ca gannaaw jotoon nañu tënk dara mais dafa am yenn ci ñoom ñoo xamante ni nii mujjeewuñu d'accord ba tax na seen lettre ba ñu bindoon yóbbu ko ca sous-préfet ba daf ko mujjee rejeté daal d'accord ñoom nag li ñuy demandé mooy kañ la minorité daan dominer majorité ba tax na kon ñi ci ëpp daal ñoom ñoo d'accordoon ñi ci ëpp ñoo d'accordoon nangu ba tax na euh, ñi nga xamante ne nii li leen jaaxal daal mooy ñi ci gën a néew ñoom ñoo fa dem déclaré na ñoom daal d'accorduñ ci ba tax ñu gàntal leen. Mm-hmm. ñoom daal li ñuy demandé mooy. Mm-hmm. Euh, chaque jour foo dem ñi ëppoon. Mm-hmm. ñu fekkee ñu ëpp ñoo demandé dara ñoo ko war a am mais tey dañu gis ne ñi nga xamante ne ni ñoo gën a tuuti. ñoo demandé am ci kaw ñi nga xamante ne ñoo ëppale loolu nag nekk loo xamante ne jaaxal na leen trop. ba tax ñuy laajte. laaj boobu noonu sous-préfet bi tan la teg loolu. ah loolu nag toj toj la ku ci bëgg xam lu la leer dangay dem nga seetaan seen chaîne bi nga xam ne mooy seen YouTube Reubeuss TV lépp nga fa wax jàng fa lu ci li daal euh, bu bu ngeen demee foofu incha allah dana leen leer ba tax na li nga xamante ne nii euh, moo xew fee nga xam ne mooy région de Kaffrine ci dëkk bu ñuy wax Koungheul euh, dëkk benn dëkk nag boo xamante ne lakk moo fa amoon dëkk bi nga xam ne moo tudd nguy nguy jaraaf murit nguy jaraaf murit nag benn lakk bu metti moo fa amoon ba jot lakk ci lu toll juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ci ay nekk ba tax na lakk làkk googee tamit euh, yaatoo na lool ba lakkaale fa benn oto bu fa nekkoon waaye tamit euh, xaalis bu takku jot na fa lakk ñi nga xamante nag ñeen ci ay dëkkandoo ban ñëwee ban dawee ñëw di leen jàppale moom ca lakk googee fekk na lakk ëpp leen doole mu mel ni foofu de la fa lakk bari na trop de foofa la fa xew nekk na lu doy waar nekk na lu metti ndax lakk kat dafa metti yuusu mhm. rawatina dëkk yooyu nga xamante ne ni seen néeg yu ñuy jege ñante mhm. benn néeg su ci xasee lakk parce que dëkk bi yëpp ñooy lakk mhm. ba tax na la fa xew daal ñoo ngeen di ñaanal yàlla daal ñu am lu ëpp la nga xamante ne ni moom la ñàkk tey jii. allahuma mel li ñàkk tey jii waaye tamit euh, ba tey euh, ci seen émission toj toj daañu dem fii nga xamante mooy Sicap Mbao ca marché ba benn soxna soo xam ne atam mi ngi toll woon ci ñeent fukki at moom nag ab dal moo wàccoon ci kaw maanaam dal bi moo wàccoon ci kawam ba tax na fi mu toll nii mi ngi ci ay jafe-jafe yu métti yu doy waar xanaa di ko ñaanal yàlla rek euh, fëgg boppam yëkkatiwaat ko ba mu mën a delluwaat ci njaboot ndax leer na ma tey jii marché ba mu demoon di taxal lu yóbbu woon ca kër ga rek ko taxawoon a jóg waa nekk na lu metti nekk lu doy waar mais itam nañu xoolaat taax yi nga xamante ne ñoo nekk ci marché yi xool bu baax saytu leen ba xam ndax nit ñi mën nañu continuer nekk fa di fa jaay wala déet xale bu jigéen bi nag ñoo koy ñaanal yàlla mu fëgg boppam ba mu delluwaat ci ay activité ak njabootam. ñoo leen ko waxoon dige bor la moo taxoon dañoo waxoon ne biir réew ak biti réew tey nag dañuy génn ci biti réew euh, ci dëkk bi nga xam ne mooy Gambie Gambie nag benn sénégalais bu fa nekk euh, moom nag diplomate la moom moo egg ci benn euh, ndaw soo xamante ne xale la moom nag yaraw neexul moom xale bu jigéen bi ba tax na ki nga xamante ni mooy yaayam euh, moo ko doon seetlu ba woo ko doon waxtaan ak moom di ko laaj ne ko ki la lay woo nii bu la la bu la masaa woo lan la lay wax ak lu mu lay jox mu ne ko ma daan jox xaalis mu ne koo xaalis lim ba nag euh, vingt dalasi la ñu wax vingt dalasi la yem waaye nag euh, weer wi nga la yaayu xale bi seetlu xale bi xam ne la ko ci la ko laaj daal xale ba yëge ko na ko kii daal daa mujj egg sama kaw maanaam li ñuy wax violé mu mel ni loolu doy na war trop yaay ji nag moom mi ngi yaay ji nag mi ngi woote wàllu ne fu mu toll nii na yoon ñëw def liggéeyam waaw boo seetloo viol nag dafa nekk loo xamante ni doy waar la lu metti la parce que ki ngay violé mën nga ko violé ba pare mu ñàkk ci bakkanam wala mu jële ci yeneen euh, feebar yoo xamante ni doo xam lan la mhm. ba tax na te li ci rax ci dolli xale bu jigéen bi di ans la am te 17 ans xam nga ne kooku du mag majeur agul mhm. rax euh, li ci gën a metti nag mooy xale bu jigéen bi xelam neexul mhm. euh, te ki koy def xelam maj na ndax koo xamante nii am nga ñeent fukki ak benn nekkatoo xale te Gambie nag ak Sénégal ay dëkkandoo lañ xanaa ñaan yàlla rek que justice soit faite. ba nga xamante ne yaay xale bu jigéen bi lépp lu ko naqari dina wàcc. ba tax na dina wàcc damay jógee Gambie ñëw fii senegal nag wax ci toj toj toj toj bi nag tey daa dugg ci làmb ci kan Lamine Thiam Dogo moom nag mu indi ay leeral ci diggante làmbi démb ak làmbi tey nee na làmbi démb nag bu njëkkoon mag ñi fi nekkoon bu ñu daan bëree ñoom dañoo mën amour bi maanaam dañoo mën ak bëgg ci li ñuy def nekk benn waaye fi mu toll nii làmbi tey moom fi mu toll nii business la waaye tamit làmbi tey moom business lamb bi tey business la mais euh, nu mu tuddati dañ naan àdduna day dox àdduna dafa dox nag nit ñi dox ànd ak moom mhm. bu jëkk xam naa ñoom bi ñu nekkee ci làmb ji seen tuwuñ ci woon ay xaalis ak mhm. yooyu noonu dañu ko doon def parce que seen bëgg-bëgg la woon mais jamono ji tamit loo nekk ñu ne genre business la te xam naa ñoom business lañu ko jàppe ndax dañu caa séntu dara moo tax ñu dugg ca di ca daan seen doole kon nañ leen bàyyeek uh, fi ñu jamono toll rek moo taxit business boobu de doy na waar xaalis moom takk na trop li ñu koy dégg nii macha allah mbër mi nga xamante ne moo fi nekk di lëmbe nag ah moom doy na mbër doy na champion ba tax na fi ñu toll nii saa yu xëyee saa yu ñu xëyee rek binaa bi day gën di yokku daal di gën di maanaam jaaxal askan wi trop macha allah muy coronavirus yaakaar naa mbir maa ngay gën yokk soxna Xadi sax ana fu mu toll coronavirus bi nag boo déggee ñu naan mbër moo tax ñu naan mbër ndax yaakaar naa ne instant yii nii mooy mbër bi nga xamante ne nii kenn xamul lan moo koy daan kenn mënagu ko daan amagul adversaire ba tax na tey jii jeudi 30 avril 2020 sur 1161 tests réalisés 51 sont revenus positifs il s'agit de 40 cas contacts suivis par nos services et 11 cas ici de la transmission communautaire mmh. répartis entre Mbao 1 Mariste 1 mmh. Touba 8 et Mbake 1 19 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. À ce jour, à ce jour 933 cas ont été déclarés positifs, de 334 guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 589 sous traitement. Nous japonais H.M.S. fanweeri fan ci weeru avril 2020 ci junni ak téeméer ak juróom benn fukk ak benn test yi ñu amal fii juróom fukk ak benn ñoo ci amee feebar bi am nañu ñeent fukk ñoo xamante ne nii ay jegeñaale ñi amee feebar bi lañ am tam fukk ak benn ñoo xamante ne nii mbas bi ñuy wax coronavirus dal na leen te kenn xamul fan la leen dalee ci loolu jot nañ ci identifier ay gox fii ci Sénégal am nañu benn mbaaw benn mariste juróom-ñett fële ca Touba ak benn fee Mbàkke ñu nekkoon hôpital nag ñu leen di faj am na fukk ak juróom-ñeent ci ñoom ñoo xamante nii wër nañ ba dellu nañ seen kër yi ba tax na am nañu tam ñaari nit ñoo xamante ne nii seen cas fi mu toll doy na waa trop ñu jàpp ne mbas bi ñuy wax coronavirus ba mu wàccee fii ci Sénégal ak léegi ñu ko fi amee moo ngi toll si juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett mhm. am nañu ñetti téeméer ak fanweer ak ñeent ñoo xamante ne nii wër nañ si mhm. am ci tamit juróom-ñeenti nit ñoo xamante ne nii ñàkk nañ si seen bakeen mhm. am kenn koo xamante ne nii delloo nañ ko réewam am nañu tamit juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ñu nekk si bérébu fajukaay yi ñuy saytu seen wër-gu-yaram ba tax na. Mhm. ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram fii ci suñu réew. Mhm. mu ngi yokk di ñaax askan bi. Mhm. ñu respecté lépp loo xamante ni bi ñu ko defee. yéen ñu mucc ci feebar bi ba léegi duñ taay di leen ko wax saa su nekk. nañ leen continuer di raxasoo savon ak eau de javel. utiliser ay sel antiseptique. di euh, takk masque saa yu ñuy génn ci mbedd bi. wala ñu dem yenn milieu yu bëri ay nit ci mel ni marché yi wala garage yi. yaakaar naa loolu suñu ko defee. mbas bi ñuy wax coronavirus dina mën a dellu ginnaaw ñëpp ci seen ay activité incha allah am solo li nga wax ni am na solo trop macha allah nañ delluwaat ci eh, ci ndigal yi nga xamante ne moom la rek ñu def ko ndax def nañ bu nekk nekk mu la di rek ñi nga xamante ñooy kilifay diine ah, ñu yokk ñu ñaan eh, tamit ci koor wi rek yàlla dogal na nga war ba ngoon jot nga ndogu jël sa kurus rek ñaanal ñu ba mbër mi nga xamante ni nekk fii di muy coronavirus bi eh, après mu génn ndax sonal nañu trop ban mën a delluwaat nag ci itte waaye tamit du ñu def lu dul nag ki nga xamante ne nii rek mooy Lamine Fall eh, madam Fall eh, ñu leen di souhaité di la ñaanal yàlla dafa leen gudd fan taw feex eh, ndam ak manoore de ma part de sox soxu bébé. Mm-hmm. soxu bébé nag moom moo leen di souhaité seen doom seen xarit ana looy wax ci loolu. nekk na loo xamante ne neex na fële ca Mbuur la ku ñuy wax Lamine Fall ak jabaram madame Fall seen doom seen xarit ku ñuy wax euh, soxu bébé mhm. moo leen di ñaanal gudd fan ak wér gi yaram bu mhm. ngeen gën a toog ci seen wet dafay euh, dëkk bu ñuy wax euh, Mbuur mhm. ci coosee coosee waaw ambour coosee mhm. fële ca mbuur mhm. yaakaar naa su ngeen déggee loolu li ngeen kontaan ndax seen doom mhm. sox soxu bébé moo leen euh, joyeux anniversaire fii ci Reubeuss la chaîne de la vérité dëgg la ba tax na am na solo euh, yàlla na yàlla defal càmm yàlla gën leen jubale seen sëy bi yàlla def ci barke xanaa lu ñu def lu dul moom xanaa Euh, tàggatoo rek xanaa di jox dig daje ëllëg bu soobee yàlla ci kàttanu yàlla ak mbaaxam euh, di di jaajëfal ñëpp rek comme ni ñu koy sa saatu nag yéen ñi bàyyi xel seen seen bi nga xam mooy seen YouTube Reubeuss TV xanaa delluwaat soxna Xadisa kàddu gi rek bu soobee incha allah. mbokk yi tey li lañ leen ci seen émission toj toj fii ci la chaîne de la vérité Reubeuss TV di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen numéro. Reubeuss Reubeuss